kër faykan gi local la ñun ñoo moom di ci soñ ñu Sénégal yëpp ñu consomé ko Sénégal kër faykan gi yegsi na Iboulaye Production présente le 17 décembre 2023 à l'arène nationale Diène Kairé du xam ngeen ko doomu Médina Fass Colobane Gueule Tapée le fils de Boy Kairé mi nga xamante ne jeexal na ay moromam yëpp moom la ñu jël nag ni ko kaay nga confirmé ci sa diggante ak Zarko mi nga xamante ne nii retour gagnant la def 3 combats 3 victoires jeexal goney Ndakaaru Ndiaye jël doon bu lay production yemul foofu Laurent Ndiago la dem jëri ji le phénomène de l'arène jël daal koy booleeg Moustapha bi trompé xale yu bare bare jamonoy Badara Gueye nga mbokk yi lamb en live ngeen koy am pay per view ci seen affiche point com xale la ak mag bombardier ba woon ak bombardier bi mënuñoo bokk ma bëgg woon adduna bi yëpp que ni âge compté wul pour man mu ngi dajee baronkuñ te téewante dina xam ne ni góor ëpp na ko doole mais Bombardier moom moo la gën a xam bu ma jàppee nga mel lamb ji jeex si kàttan suñu borom. dama ne mosul bëre ku mel ni man. bu dawul ñu daje laa la wax def lu du lu neex lu amateur yi bëgg. gis bu jour ba dina xam ne lépp dëgg la. man bu dul ama neex bu Lamine bàyyi mën a xel moom dina tal leneen lu dul booy bu xees wala am na doole wala amul doole bu ñu dalante rek yàlla baax. barki salaate faate damay dem jixaate lu ma am jël. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey nag ñëw nañ fii waay seet si kenn ci seeni doom muy Jackson war a bëre lundi 25 décembre arène nationale digganteem ak Sokh bu Pikine combat bi Thiam production moom moo ko taxawal ah ngeen gis ñaari mbëri ku ci nekk di wax nu mu fas yéene duggee ci boobu le combat seeni mbokk nu ñu fas yéene duggee ci boobu le combat ngeen def ngeen gis keroog ñu ñu def signature signature bi nag moom gars yi lañ doon xaar dégguñu ko ci ñaari mbëri a affaire combine bëri yooyu yooyu bëgguma ko <laughs> Jackson maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaanee sa diggante ak Sokh mu war a am le 25 décembre. waaw Lamine maa ngi lay fay maa ngi sant yàlla bu baax di jull si yonent bi di sant suma ñaari waajur ah di ñaan suma yaay fu mu tëdd yàlla na gën a fu mu jógee di ñaan mère Awa ak père Bakar ak imam Hamid Ndiaye yàlla na yàlla yërëm taxal na àjjana di ñaan suma sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha yàlla na fi yàgg loolu di wér ak suñu capitaine maam Cheikh ak maam Babacar di ñaanal Moussa Diène yëpp ak Moussa Dar yëpp waaw di bëggee ñëpp di bëggee suma père père Diaw di wax laamu ji la Aziz Aly Ndiaye xam nga ñu ngi koy woo si laamu ji Baye Ndiaye Babacar Diak xam nga di woo waa Buun yëpp ak waa Géewaay di woo waalo waalo yëpp di wax laamu seen lamb la waaw di ñaanal ñëpp jàmm mm-hmm. waaw di nuyu ñu si président bi xam mbës bàcc ak Makar Fora ama gaay daal ñi mhm. sa hôpital yàlla na yàlla yërëm taxaw na ñi ngi sa hôpital yàlla na génn si jàmm kon incha allah amiin amiin waaw ñi nekk prison yi ñu <laughs> nekk si hôpital yàlla maa ngi juum sax uh-huh. mm. am na solo Jackson dañ la fekk nga toog ah jàpp sa njàmbur toog ak say gaay sol sa jàllaabe jàllaabe daa mel ni moo xew de yaa ngi soqute ku nekk ngi sol jàllaabe di nëbbatu lan ngeen nëbb nëbbatu man ngay def naa interview yoo may def entraînement interview bi kay man tey géej laa la ko bëggoon may sax. Mhm. si yow la yaaxoo rek peut-être loolu ni nga ko bëggee woon demeewul noonu. Mhm. Ah, di woo liiru Bayane liiru suma pap suma lépp ak Modou directeur. Serigne Mado Modou boo ko woowee taxaw Serigne Mado du ñëw. <laughs> ah Modou Ndiaye kon Serigne Mado. waaw ah. borom États-Unis ah. Mhm. ñoo ngi koy woo ba xam liiru waaw Lat Diop ministre des sports. Boucher Ketchup nee na combat mi combat am la ko jël. Hmm. waaw moo xaar andi waaw xaarib anda seeg combat moom laa koy bëre ak seen si xaarib ci yoonam xaarib moom xaarib moom combat bi yow combat xaarib la waaw hmm. ah, ak seen si bi sëñ Babacar kañ production hmm. amin ok combat bi déggoon nañ dem nga fi Espagne ñaata mois nga fa def deux mois quinze jours deux mois quinze jours laa ko def hmm. lan moo tax nga teel a ñibbi non lu ma bëgg a fi lu ma dama benn kii laa doon def na benn benn kii quoi dama doon def pour préparer noonu rek avance yeeg yooyu noonu xam nga daa am foo soxla woon uti ko ñëwaat. Hmm. li nga fa bëggoon ndax am nga ko fi bi nga demee. oui am naa ko kay am naa ko bu baax a baax. Hmm. Hmm. lan nga fa a bëgg laa ko gën a bëggoon pour sama yaram gën a baax rek man entraîner moom pour sox man entraîner pour carrière bi waaw. boxe bi nga doon defaraat rapidité lan lan nga fa liggéey exact. xam nga mbër dina dem mu ne dama doon dem pour yokk sama masse dama doon dem pour récupération bi wala nga ne dama doon dem pour uti doole xam lu ma xamul woon gis ma gisul woon yow nga demee lan nga gën a lan ci gënoon a euh, concentré wu. man dama doon xam nga pour hivernal <clears throat> parce que loo entraîné fort mën nga koo entraîné bi mais pour nga am temps boobu na ngay noppal normal xam nga loolu moom foog doon yóbbu def na hivernal bu baax eh, lu si ñëw ma àggaleeku fii nii. dem mm. naa yokk ma masse dama demoon pour waaw gën am yaram bu gën a sentir waaye. Mm. poids bi nga bëre woon sa dernier combat ak ñaq jariñu même poids nga fas yéene bëri ak soq wala am na lu si yokk. waaw instant moom pare nañ moom quoi mën nañ bëree lu ko gën a ndaw sax ak ak soq. Hmm. loolu la laaj bëri soq wàññi poids la laaj. non da nga wàññi poids rek xam nga affaire moom <clears throat> dëgër du si ay ponkal ak yooyu dix heures tamit du si loolu noonu doole du si dix poids ak ak ak doole bokkul mais entraîné nañ daal doole entraîné nañ lu mën yaakaar mën nañ daan soq loolu quoi. Hmm. oui. ñu jàpp ne soq moom moo la ëpp doole kon ñooñu dañuy dañuy trompé non le 25 dina xam moo ëpp doole ëpp ma doole le 25 allah saratul man xam naa ne ma doole. te bu ñu soq ëpp la doole. non ma doole moom bu nekk kirim daja dina xam ne ëpp ma doole. keroog bi ngeen jàkkaarloo ne woo ah man maa juum. yàlla xam na ni keroog bi ñu jàkkaarloo sama xel dafa gën a dal. Eh. Ah, man non man lu ma liggéey laa gëm quoi lu ma liggéey laa gëm te man xam naa dañ naa coon si te xam naa ba may liggéey moom xam nga liggéeyul oui. da ngay moom liggéeyul te man xam naa ko maa gëm naa ne maa gën daj ay coona soq nan ko gën a day yoon soq mi nga xamante ni combat bi mu taxawee ba léegi Pikine buñ ko gisee benn yoon lañ ko gis wala ñaari yoon mu ngi nëbbatu côté Mbour rek ah di entraîné di kontaan nga li nga daj daju ko foo teg loolu. waaw lu ma ko nangu lu ma ko lu ma ko na def na lépp mais man tamit entraîné na mais dama gëm ne man maa ko gën a entraîné. Hmm. tamit naa la xamal leen de dem entraînement ak entraînement bokkul loolu xam différence maa ngi dem entraînement ak entraîné bokkul man dama naan maa ngi dem entraîné su ma demee entraîné. entraînement na nekkul da ngay am benn combat nii rek ne da ngay entraîné entraînement si nit lay nekk si deret nga bëgg ko ñeme ko eh noonu la demee mais nekkul da ngay am benn combat rek dama war a làqu dama war a entraîné. da nga cee nekk ba gëm ni sa adversaire li nga mën a def ci entraînement. defu ko wala da nga koy wax juste rek pour pour pour pour merloo ko. non man nekkuma genre mbër yoo xam ne damay wax pour kamu fula wala yooyu man lépp lu ma gëmul du ma ko wax man lépp lu ma wax rek Lamine lu ma gëm laay wax quoi sox champion la ndaanaan jàmbaar la tamit quoi. wax dëgg yàlla mais man lu ma gëm ne man maa gëm dama gëm ne maa ko gën a liggéey. waaye. Hmm. Hmm. te gëm nga ni ëpp na doole it. non non ëpp ma doole doole doole doole bokkul doole ay rëy bokkul. gis nañ sa combat ak euh, Pam Doy hmm. da xeex. jóge fa bëri ak Naar Soga su ma jumul ah. boobu xeexoo. Ameth dem xeexoo. contre euh, ñàkk jariñu nga xeex. Mm. peut-être combat yooyu ñoo laajoon xeex sa combat ak Sokh la laaj. waaw xam nga tey man nga programme li lépp dem ba si biir géew affaire yi changé am dem xeex laa programme woon ba si biir affaire yi changé man lépp laay daal dama indi bëri indi xeex man ak Sokh nag bu laajee bëri ñu bëri bu laajee xeex tamit ñu xeex lu mu laaj rek si biir géew yi. Mm. oui instant bi la laaj. non instant bi moom xamagul laaj. <laughs> waaw ñooñu xam na daal làmb la laaj te ñooñu ci làmb ji. làmb la laaj. ah mais gars yi nee ni ngay bëree ak ni ngay songe adversaire yi. sa diggante ak soq de wala yow nangu euh, gis-gis yooyu. àdduna lépp risque la moom boo bëggee am dara il faut nga yëg ay risque waaye àdduna moom lépp risque te soq moom lu danger si moom quoi loo xam ko hmm. bàyyi xel. soq du cës. non gisuma lu danger si moom wax dëgg yàlla. ci bëre wala ci ci xeex. si ñaar yëpp côté yëpp bëree beeg xeex beeg doole beeg yëpp gisuma wax dëgg yàlla lu doon na si man pour man. Hmm. ndax maa gën nekk xale maa bëgg a dem ay. waaw ah, soq di xale kom yow jóge jóge ci. lu mu nekk nekk defet ak ak combat boo xam dafa nul. soq tamit dafa am bor boo xamante ne daf ko yoreel waa Pikine te ci yow mi la ko fas yéene fay de. <laughs> yàlla baax na yàlla nañu yàlla suturaal rek xam nga moom mu yor ndam te ndam ko yàlla nañu yombalal ndam bu jour waaw. Hmm. waaw moom daanaan la wax dëgg yàlla soq daanaan la li may wax rek. jàmbaar la peut être rek làmb des fois du ñàkk xam nga nekk si ay moment yoo xamante ne xam nga da ngay kenn du ko werante ne moom la. Hmm. mais ñu hmm? ko ku ne ku ne ko ëpp fit. nit ñi moom xam loolu moom ñu koy seet xam nañ sax nu mu demee quoi fit daal mooy lu may wax rek fit nekkul lu ñu jënd si marché bi nekkul lu ñuy àbb nekkul lu ñuy suñu borom moo la koy jagleel la nga judduwaale ak moom bokk si famille boo xam moom fit hmm. waaw mais nekkul ay da nga koy loué wala combat bi ma war a fit la noonu fit moom si nit lay nekk ku ëpp laa bëgg a ku nekk am na lu nekk ci yow léegi ku ëppale a am. ko fit incha hmm. man moom yaakaar naa kuy dox si kaw suuf moom bàyyi ma la xel sax si côté boobu noonu quoi moom mu neex dinaa ko song mu naqari dinaa ko song incha allah. maanaam da ngay dox ci kaw song. ah waaw man lu ma daan def du ma si ma naxanteewu ma kafu ma foowu ma waaw ñoo ñaan suñu borom nag yàlla ñu suturaal le 25 incha allah. su ma la laajoon lan nga jàpp ne moom la gën a mën ci làmb lan nga may wax ci bëri. mën na lépp. fooram ay mën na lépp lépp mën na ko lu bëri laaj mën na ko. Mhm, lan nga gën a seetlu ci mu mën ko. am na dégg nga ma wax ku mën lépp koy jeexal nga lépp mën na lépp. man de bëree mën na xeex am na doole macha allah. mën na laa yenu way man na ma yenu kay. <laughs> bu bu jógee yow moom ah. ah. man na ma yenu mais si dañu àgg foofu. ay si dañu àgg foofu noonu. si dañu àgg fu ma yenoo. yéen moom koy tal. da nga koy tal waaw loo talul loo talul doo ko def. est-ce que moo ne dina tal ay yéen ah. baax na <laughs> yàlla ñaar wa waa Géejawaay ak buun nan la ñuy waajalee waaw di woo waa Géewaay yëpp mel na suñu père Diaw xam nga Aziz Ala Ndiaye combat bi combat la dégg nañ barki démb xam nga Pamama waaw président Lat Diop aadi wax Néné ministre Néné Tall ah Fatimata Néné waaw Pam Mor Diagne waaw ñu ngi siy jàpp bu baax di si woo ñëpp. di woo waa buun bu baax a baax a baax ku mel ne ñoom am ñoom baaba ñoom laa yób di wax sama open presse le 18 la buun dama bëgg mu teel a a ñëw mu teel a jeex maa ngi si woo ñëpp waaw di si woo waa buun yi waa Rue 15 di si woo waa Mbedd Fass di si woo waa Diamaguène waa Cambérène ma fi waa Cambérène bi waa Kër Thiam waa Rungaas gi xam ma fi waa Ayte bi ñu si wo ñëpp di woo suma koñ bépp ama di wax suma benn booy am si am na combat le 27 nga arame bu pir ama pakala bu njateen waaw mooy loolu wëz di woo ñëpp daal di woo meer bi Adama ama na si bu baax a baax a meer suñu maire la suñu papa la suñu lépp la soxla bi amin le 25 bés la de. bés bi mot si bés bi wala ma bëgg ñëpp dama a feesal stade bi. Bébé Saloum Serigne waaw Valdo caatu Yoff caatu astafurlah caatu waalo. caatu waalo waaw caatu waalo. bés la ak Baye Ma Ndiaye. waaw waaw. xama président Pafal xama ñoo ngi woo sama mbokk yëpp waala waala yi kër Mor Sarr xama di woo suma seex yi ak Ibra waaw seex yàlla yi ñoom ñoo ngi bu baax ñoom tamit xama Vedem ak jabaram Fama Ve suma waale suma lépp la lu ne la may defal si combat bi combat bi daanaka moo ko xama maa ngi woo baax a baax Mourou Matar waaw di woo tamit xama Moussa Boy Colabane suñu waale suñu lépp seex jàmm gën waaw di woo ñaa xarañ loo. ñaamin waaw ñaa xarañ loo waaw. kii di woo waaw di woo daal di bëgg ñëpp di ziar ñëpp. di wax waala waala yëpp nag maa ngi woo waa Ñij waa Kër Moussa waa Ñij Yaman waa Joxor waa Peneen waa Cekena waa Ñij waa Malla waa Foos xam waa Ndimb waa Ndeer. xam nga di woo waa Bokkineedo waa Tës wa Jalang. Jalang képp kuy waal waal ñoo ngi lay woo di woo sama mbokku pël yi. waaw xanaa daa jógee Fouta. Fouta Jéeri waaw Julle Jéeri Julle ah. di woo waa Boqal di woo ñëpp daal képp kuy waal waal la ñu ngi lay woo ah. di woo sama mbokk yëpp ñu ñëw jàpp si waa Boune. bonne presse bi sas naa ko ñoom Baba. Hmm. Baba mooy organisation bi. Baba Diaw. Baba yow suñu mag la suñu lépp waaw borom la 25 moom yàgg ma tëggal xam na ma xam naa ko. yaakaar naa mooy troisième fois. mooy troisième fois mooy tëggal te sama njëglaay la ma daanu si. waaw soq la tamit <laughs> Abdoulaye Ndiaye suma gaayaan suma lépp tons. ñu ngi koy ñaanal jàmm tamit la bëggee yow tamit di bëggee journaliste ka fay kan ngi fay say facture mu ci gën a gaaw jëfandi KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko. Iboulaye production présente le 17 décembre 2023 à l'arène nationale Diène Kairé du xam ngeen ko doomu Médina Fass Colobane Gueule Tapée le fils de Boy Kairé mi nga xamante ne nii jeexal na ay moromam yëpp moom la ñu jël nag ni ko kaay nga confirmé ci sa diggante ak Zarko mi nga xamante ne retour gagnant la def 3 combats 3 victoires jeexal goney Ndakaaru Ndiaye jël doon dañuy bëre doo ma daan production yemul foofu Laurent Ndiago la jël di koy booleeg Moustapha Gueye numéro 2 l'espagnol toro bi xaar bi trompé xale yu bare bare. yow jamonoy Badara Gueye nga. mbokk yi lamb ji nag en live ngeen koy am pay view ci seen affiche point com. xale la ak ma bombardier boo woon ak bombardier bi mënuñoo bokk. ma bëgg woon adduna bi yëpp que ni âge compté wul pour man. mu ngi daje waroon ko te téewante dina xam ne ni góor ëpp na ko doole. mais bombardier moom moo la gën a xam bu ma jàppee nga mel lamb ji jeex si kàttan suñu borom. dama ne mosul bëre ku mel ni man. bu dawul ñu daje laa la wax def lu lu lu neex. lu amateur yi bëgg. gis bu jour ba dina xam ne lépp dëgg la. man bu dul ama neex bu Lamine bàyyi mën a xel moom dina tal leneen lu dul booy bu xeesu wala am na toole wala amul doole bu ñu dalante rek yàlla baax. barki salaate faate damay dem jixaate lu ma am jël.